Thank you. asalaamaaleykum àddina asalaamaaleykum Gambia nuy na kep ku setan Sahel Network TV aisha tewar rek sen programme lo looy yëngu eh, di business profile di begal kep ko xamantene nak nag yaa ngi dara rek bëgg naa ñoo jakarlo yo ñu pelloo tay nak maa ngi ci bir banjol Banjul ñu nan ko Lancaster ci salone ndey Sofi dam koy bay mom mu nuyo rek wax len mom moy e kan su pare ñu yaatal waxtaan bi asalaamaaleykum wa alaikum salaam aisha maa ngi leen nuyu di nuyu kep ko ñuy setan maa ngi daa Ndeye Safi maay borom Safis Beauty nekka xale bu jos commencé liggéey gom boppam fonk lu muy def macha allah loolu moom neex na euh, mu ne moom mooy boroom Safis Beauty euh, ndey ñu laaj la depuis kañ nga commencé di liggéey si wàllum salon bu ma commencé ak léegi depuis bu ma jeexalee school that's four years now so ma commencé boo dafa dama ñëwoon si ku ñuy wax maam jaara kooku mu jàngal ma yëfi later then after ma ibbi suma place bopp di liggéey loolu moom nekk na loo xamante ne it's very important parce que nekk xale tamit nga am jom am loo xamante ne comme yaa ngi ko mun di ko bokk ak nit ñi dafa neex euh, ñu gis na nga ne maam jaara moom mu moo la xaalil yoon bi nga mën a toll fi nga toll waaye lan ak lan nga dee def si biir salon bi. waaw Surface Beauty amuñu si make rek parce que dañuy later dañoo def pédicure médicure dañoo defar seet. musoor ak yëpp la ñuy def lépp luy taaral jigéen lekk soo ñëwee Safis Beauty di nga ko am bu soobee yàlla. yéen moom macha allah waaye nga ne lépp luy taaral jigéen xanaa kon góor ñi bokkuñ si. non ñun nag dañuy defar góor jigéen ñi kese la ñuy defar. <laughs> waaye góor ñi dañuy ñëw di waxtaan si rek. di la reeloo parce que góor yi man góor yaay suma xarit. waaw su salon bi is open for all. loolu moom neex na dégg ngeen lu ndey wax góor ñi ñoom dañuy ñëw di waxtaan si <laughs> waaye gis naa ne moom góor ñi ñoom ah, xarit ñëpp leen parce que man tamit ah, xariti góor laa ëpp kon nag ñun ñëpp gis naa ne kon benn la waaye yéen a ngi liggéey comme si wàllum salon yéen difficultés nga xam ne yéen loolu ngeen dee fees loo xamante ne soxla ngeen ay solution ak viewers yi tamit luñ leen a yokk xalaat. waa benn si courant bi dañ si am difficultés cause da nga am su seet nga make up ko ba si digale courant bi off. te xam nga tàngaay lañ nekk fu mu nekk nii su te seet soo koy make up like da nga need fan cause da ngaa liggéey bi si kanam courant bi off ba pare like dañ need sponsors cause nekk nañ ndaw yoo xam ne ñu ngi just commencé amuñ benn sponsor bagage yi cher na liggéey bi métti na ba pare ñaan nañ yàlla tam suñu liggéey bi eggal si next level. odoo di nga gis ku mun a make up mun ku mun liggéeyam waaye amut ku ko sponsor wala amut ku ko jàppale pour promote business am bi so niit nañ sponsors pour suñ business bi dem si other waaw mu ngoog ndaw yi léegi bëgg neen Gambie yi àgg foo xamante ne macha allah te ndey ñaan na ndimbal kon yéen mi seetaan tamit muy waxtaan muy xelal muy seen loxo yi tamit na soxla neen ko loolu yëpp ndimbal la so ndey ñaan na leen ndimbal gaaw leen ngeen andi waaye ndey euh, léegi yow lan nga foog ne comme mooy son bi yéen business ñi nekk sa business loolu lañ leen gën a mun a gaaw a dimbali. well ñun mi nekk euh, ndaw yu nekk di liggéey. like makeup artist léegi bari na ñun ñëpp suñ jàppee jàppante nekk benn toog at least ut benn la see like comme benn programme def ah, makeup artist yëpp ñëw ku nekk makeup def competition tamit loolu tam baax na dafa help suñ business bi mu dem ci kanam waaw su ku am ndimbal daal sponsors daal dimbale ñu comme yeneen yi nga ñëw ci salon seet yenn difficultés lañ am nga dimbale ñu at least soo ñu mënee jàppale si xëj na benn foundation wala dara sax moom dex na wala gi ndey yow ak ñan yéen a nekkat di liggéey si biir salon bi fii waa fu mu nekk maa ngi fi am ñun foo ñoo fi nekk di liggéey man ay Aysatu Roxi ak Awa Ndey Bintu Awa ak Ndey Bintu macha allah léegi naka nga nekk di dundee ak uh, sa morom yuut si yéen a ngi liggéey fii nii waa ñun moom si jaama nekk fi di liggéey di jàppalante ñun ñëpp dañ déggoo nekk benn wax dëgg parce que depuis wan ba tey man ak ñoom la te ñu maa jàppale tey taxaw nañ ma diga diga suma démé sax suma xel dal because of dinañ fi nekk rek le salon bi duma ko bëggé duma ci am ben problème lolu mom dafa ne so nekkee ñi olu ño xamante ya ngi leen bay gannaaw sa xel dafa continuer di dal way naka nga nekkee de dundé ak client yi bëri problème yi parce que amna ño xamné da nga la naan make up ba man bëgguma li make bi dafa ak non naka nga nekkee de dundé client. ay bobu tam benen la fokk nga am patient because of soy liggéey ci salon façon nit bu nekk moy ñew te kenn ku su nekk ak jikkoom di nga defaral nit mu rafet mu ne la déedéet lii bugguma li dafa bari wañal ma li safut yokal su yow da nga wara am patient bi nga xamante lu mu wax rek lool nga wara am pour defaral ko bot su nekké ni wax ne li la bëgg nga ngeen ko déedéet li la mëna def sa salon bi de du dem. ñan nga ñoo mëna wax ne ñom ñoy sa main customer ño xamante fuñ jaaree dañu xamné ne Beauty ño fa jaar. waaw suma customer kenn ko su melni ni Aida. moom suma sista la suma xarit la suma waaye la moom bañ na ko ba seen koñ sax ku wax ne make up rek mu ne la suma sista bi ndey sa mu make up la moom moom suma customer la moom fu mu maa ko defar ñoom yaama ñang ak ak ñeneen na ñeneen daal kullem juum waaye wax dëgg suma customer yi daal amañ moroom <laughs> kon loolu moom neex na waaye gis naa ne ah ndey moom dafa xiif <laughs> léegi dama koy wax rek mu xelalal ma suñ mbokki gambiyan si lan foog ne loolu ngeen mën a xelal suñ mbokki gambiyan si wel xale yi lay waxal di leen ñaax rek ne toogaay bi amul njëriñ kenn ku si nekk na nga jóg utloo yëngatu parce que kenn ku si nekk zéro nga commencé ba egg fi nga toll soo si tamit dañ nit ku leen jàppale cause léegi liggéey amul da ngaa gis graduate mu nekk si mbedda bi te mu ngi am papasam yu baax bot fii daal liggéey bi tam dafa xaw a difficult kenn ku si nekk na jég rek ut loo def fasul waa léegi laataa ñuy tàggatoo dama bëgg nga wax ñu comme sa raw matériel si yoo xamante ne yaa ngi koy use si biir salon bi fan nga ko dee bëgg di jëndee. wel dama dee dem Nigerian market ma jënd fa som yeneen ni am na suma benn baajon moom tam wax dëgg daf ma dee jàppale daf ma dee mën a yónnee si yenn bagage yeneen ni ma dem fii façon star dem jënd fa yeneen yi moom neex na léegi dama lay bàyyi rek nga tàggatoo nga joxe sa final word parce que xam naa balaa ñuy dem foog nga léebal ma wala nga woyal ma léegi tàggatoo laa ñuy seetaan. ok maa ngi sant suma ñaari waajur suma yaay ak suma pam ñoom it wax dëgg jàppale nañ ma taxawu nañ ma parce que suma yaay fu mu gis bagage dina ma jëndal ñëw ne ma am yokkal lii si salon bi suma pa tamit du jóg si di ma ñaanal saay bu nekk ñaanam mu ngi ñëw suuf si man suma baajani tam wax dëgg taxawu nañ ma suma sista si. suma toomaay ak ñoom ñëpp maa ngi leen a ñaanal ak suma dikkandoori fii parce que like man dafa mel ni maa ngi suma kër fii suma fi nekkee du ma yëg dara waa koñ bi téye nañ ma def nañ ma ni seen doom wax dëgg maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen sant yéen ñi seen liggéey bi dem ci kaw si kanam parce que yéen a dee feeñal ndaw yuy liggéey. waaw thank you so much euh, léegi joxeel sa contact ak sa location foo xam ne comme képp koo xam ne bëgg nañ ñëw Surface Beauty rek nu muy def. ok Surface Beauty mu ngi nekk à Lancaster Samjak smart number bi mooy 3760 630 affichage bi 7470 630. macha allah léegi nag agsi nañ si jeexantal bi léegi léebal ñu wala nga wéyal ñu. <laughs> non boobu da ngeen maa mu ne ma lépp <laughs> mu ne ma wéy. moom teel naa daw sax ne <laughs> mu ngoog suma gars yi gis ngeen tey kanam bi ndey moo si jaar macha allah gis ngeen fii la ma génnee tey kon na dañoo tàggatoo rek joxaale leen di daje ba beneen édition of the Loi Yengou Show thank you